waxoon gis nañu ko eh, mu dellu waxaat ñu ni programme yi courant yi nga xam ni président de la république na ko ci réew mi am naa yaakaar ni fokk gox bi dina ci bokk loolee nu di ko xalaat di ko xalaat ba tey dëkk bi poto yaa ngi nii bu guddee làmp yi day leer nañ loolee rafetal googee nu ko ciy sant waaye nu ngi ciy santit kii nga xam ni muy Talla Diagne mii nga xam ni moom la yàlla def mu fekke ko muy ayam mu dikk ci ndax nag ni ma waxoon rek tombe moo waral ay gaaf su gaayoon gaafit it mën na fee ne ba jóge fi xiiwal yi duñu ko am waaye noo ngi am xiiwal yi ci ak kayam tey lu mu man di doon ci loxoom lay jaar keroog ba ñu ba ba ba eh, eh, ONC bii di yónnee di wax sunu xel dani nañu yëgal ko Talla Diagne yëgal ko sous-préfet ndax ñooy autorité administrative yi nekk ci koñ bi kon maire ñu ngi lay sant taxawaay yi rafetlu nan ko yal na yàlla yokk xéwal yi ba fi nu bëgg a yegg fi nga bëgg a yegg ak nit ñi yàlla jàppale la nga yegg fa e, noo sant mook ñi muy àndal ñëpp e, noo ngi santit bu baax waa tund wi ndax ambulance bi bangaaj moomu ko beneen dëkk moomu ko tund wépp ko moom képp kuy faju ci poste de santé bi ci nga bokk kon ñépp ko bokk bu ñëwee nekkalu fi kenn képp ku ci am soxla bu ko yàlla dogalee di nga jariñu nit ñi it xamee nañ ko ni ba xam nañu ni lépp lu fi nekk ñépp ko bokk kon maa ngi sant mboolem ko fi teew